سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمال واصرف بحق وجهك الكريم يا معطي التقديم والتكريم إلى سوى ذات المكاره معا كل المفاسد وللمنجمعا يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا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 mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu noo ngi leen di nuyu ci turu mboolem ñeenti président yi nga xamante bi ñu seq ñeenti daayira yi may bëgg a tudd ñeenti daayira yooyu nga xam ne bis ni tey ñooy jëmmal seen jëf ji ñuy wax seexale boole seen bopp ànd ngir liggéeyal Cheikh Moustapha ñeenti daayira yooyu mooy daayiru Moxlisina ci njiitul sunu bàyyi Serigne Moussa Gaye waaye ak daayira Naylul Maram ci njiitul Baye Cheikh Dieng waaye sëñ Modou Kane teewal ko fi waaye daayira Xuddaamul Xaddiim Maxtaar Silla mii di wax ak yéen teewal leen bi ak mbooloo mi mu àndal رحمه الله تعالى وبركاته نغي سانت يالا بو باخ مصطفى صلى الله عليه وسلم دي نيان يالا سبحانه وتعالى تي مباخما كاتنا مو ديفال الشيخ محمد المنتقى اكبر غو اندك ياغ ابو تال بام بولم لي نسب الاسلام نسب كو الشيخ مامام شيخ مو عم كو نيم كو بغي تاني ام توفيق Eh, yal na yàlla yàkkali ñaan googu ba mu daj mboolem jaboot ak Cheikhul Khadim ci kaw suuf waaye yàkkali ko ba daj mboolem jigéen bokk yi ni ko sëriñ Maxtaar waxee ñu ngi jël ak nuyu ak ab ziyaar ginnaaw bu ñu ziyaaree Cheikh Mouhamadul Moustapha ibnu Cheikh Mouhamad Mbakke radiyallahu anhu di wax ni salaamu yàlla nga may Cheikh Moustapha sunu moom jàmm ak jubóo ju na mu musal ko ciy noonam rambaaj na koy tegg ay soppeem na ñépp di bëgg dundam na yàgg te wér ko ki kaaraange ñu ngi ziyaare bu baax sëriñ Moussa Gaye mi nga xam ne mooy kilifa ak jataay bi di ziyaare sëriñ Maxtaar Silla di ziyaare bu baax sëriñ Moustapha sëriñ Cheikh Ilimane Dieng ak sëriñ Cheikh Dieng ñom ñi nga xamni ño sekk séq daayira yi nga xam ne ñoo organisé ndaje mii di ñaan yàlla mu boole ko ci dajé yi nga xam ne bi sallallahu alayhi wa sallam doon na wax ni majtamaa qawmun fi baytin min buyutillahi yatluuna kitaaballahi wa yatadaarasuunahu baynahum illaa nazalat alayhim sakina wa gashiyatuhum rahma wa xafathum almalaika wa dakarahum fi Moustapha sallallahu alayhi wa sallam nee na saa su aw nit dajee di fàttaliku di fàttalante seen biir di jëm ci alquran ak sunna yàlla subhanahu wa day wàcce yërmande ci seen biir day wàcce ak dal ci seen biir day yebal ay malaayika ñu wër leen di bind lañuy ñuy jëf xamal ne yàlla ñii kat ñi ngi ci la nga bëggoon inna kunna nastansikhu ma kuntum taamaloon ñi ngi ñaan jotaay bi yalla suñu borom subhanahu wa taala boole ci jotaay bobé waye mbokk yi ko señ maxtaar waxé liggéey moy li nga xamné mo tax suñu borom subhanahu wa taala bind ñu waccé ñu ci kaw suuf digal ñu ko nak ci alquran xamal ñu ni su ngeen jëfee danaa ko gis rasulullahi dana ko gis ëlëk su ngeen del la fay lé li ngeen doon jëf waxu fa sa yara allahu amalakum wa rasuluhu wal muminuun thumma turadduna ila alimi l ghaybi wash-shahada fa yunabbiukum bima kuntum taamaluun jëf nag ba jëf jeex jëf ja ca gën mooy jëf joo yaakaar ne suñu borom jëf ji suñ borom di nangu jënn gënu caa yaakaar jëfe ko ci biir liggéey Sëriñ Tuuba ndax Sëriñ mooy ki nga xam ne moo wax ne ku jot ni li ma yàlla defal ci ngërëm ci sama liggéey bi da nga ko amati daq naa sa njort ndax maa liggéeyal yàlla ni ko kenn liggéeyali wut maa ko liggéeyal fu ko kenn liggéeyali wut man zanna annahu yakunu abada yurdihi billadi ka xidmati bada nafaytu zannahu bi an yel xadim bi ma wana al mislihi kullu xadim kon liggéey ci biir liggéey Sëriñ Tuubaa moo ëpp yaakaar ci képp kuy liggéey waaye Sëriñ Tuubaa moom mu nekk di kenn koo xam ne datt la datt nag peer da cay sax peer boobee ay wànqaas sax ca ñun nekk wànqaas bi nga xam ne moo sax ci datt boobu nga xam ne mooy garab ak Sëriñ Tuubaa muy ak Cheikh Mouhamadou Moustapha radiyallahu anhu nekk koo xam ne mboolem li sëñ Tuubaa neseroon ci dundam te yàlla muy ko eggale ko moom moo ko ko eggaleel sëñ Moussa sëñ Moussa moomee nag kenn ci ay sëtam di Cheikh Moussa Mbacke moom sëñ Mbacke soxna Lo nekk suñu bunt ci sëñ Touba nekk ab liggéeykat boo xam ne képp ku jamonoonte ak moom xam nga di liggéeykat la liggéeykat nag su la yàlla dogalee nga ànd ak moom soo bëggee gañe bëgg a tanawu la ngay def mooy góorgóorlu ci liggéey moom nag mi ngi wane aw yoon ndax mi ngi dox di soññe ni ko sëriñ Maxtaar waxee képp kum jamonoonteel xam nga ne jàmbaar ngi nii ji wéy ci lu neex yàlla subhaanahu wa taala bëgg ak sëriñ Tuubaa te kenn fekk ko ci lu ñu naan ajam kon nag képp ku koy tuddoo war ngaa góor lu ca loolee ba fu ñu tuddee ne sëñ sëñ Mudu Saa mooy ki gën ci sëriñ jamono ñu mën laa wax ni yow itam yaay taalibe bi gën ci taalibe jamono loolu la ab sëriñ di jariñ ci donga moo tax bi ñu dajee daje bii bokki jullit yi xalaat ñëpp daje ci jataay ñu tànn benn mawdu muy benn thème boo xam ne dañ ko fi waxtaanee parce ko yéenee jox koo xam ne incha allah bu ñëwee xëy na présentation bi di yaatu ndax ñëpp ci mboolam mi xam nañ ko waaye thème bi nga xam ne moom lay tànn ñu jëme ko ci kilifteef ndax kilifteef mooy li nga xam ne mooy tax nit xam fi muy teg tànkam yàlla subhanahu wa taala bi mu di ba noppi ku nekk xam na ne moo ñu moom waaye téewal dafa wane ci ñun kilifteef ba tax mu wax ni qul aaudu bi rabbi naas maliki naas ilaahi naas ñetti baat yooyu ñetti aay yooyu benn bu ci nekk la muy tekki mooy kilifteef rabbu naas yàlla moo ñu bind moo ñu moom waaye téewul nii borom nit ñi maliki naas kenn si sàkkut ak moomeelam waaye teewul mu wax ni borom nit ñi illaahi naas yàlla nit ñi kon yàlla subhaanahu wa taala bëgg naa saxal kilifteef ci jaam ñi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam itam li tax yàlla subhaanahu wa taala yónni ko di lenn lu may saxal kilifteef ci kaw suuf kilifteef ko mooy lan mooy li wax ni huwa alladi arsala rasulahu bi huda wa diinil xaq li yuzhirahu ala diini kulli mooy ki nga xam ne moo tànnal Mustafa sallallahu alayhi wa yónni ko ngir mu feeñal diine laataa ko diine di wàcc nit ki kenn ku nekk daf doon dox ni mu bëggee ci ni ko neexee di dox ni mu bëggee ci ni ko neexee yàlla xamal leen ni lii di yoonu mucc su ngeen bëggee yoonu mucc da ngeen di jaar ci kilifteef wàcc Seydina Muhammad jox ko islaam islaam kon di jàngale kilifteef kilifteef nag lu yaatu la kilifteef lu yaatu la doom ci kanam way jur kilifteef dafa war a am waaye soxna ci kanam sëriñ kilifteef dafa war a dox waaye donga ci kanam sëriñ kilifteef dafa war a dox waaye njiital réew ci ña mu jiite itam kilifteef dafa war a dox jëwriñ muy sëriñ ci kanam ñi mu jiite itam kilifteef dafa war a dox tomb yooyu yëpp rek incha allah bu neexee yàlla mooy tomb yi nga xam ne ci la ki nga xam ne mooy def waxtaan yu bëgg wax ak ñun dafa mel ni egsi na muy koo xam ne ñu bari ci mbooloo miin nañ ko muy Serigne Mbacke Gaye Serigne Mbacke Gaye ganiyun an taarif ndax ci dëkk bi la juddoo fi la jànge ba lépp loo xam ne ab sëriñ wala doomi soxna war na koo xam mu xam ko door fee jóge génn dem bitim réew jàngiwaat ba am ay diplôme dikk di continuer di jàngale ba léegi nii bàyyi wut jàngale kon sëñ Mbacke Gueye moom moo ñu bëgg a waxtaanal ci thème boobu ñoo xam ne moom lañ doon laltaay te mooy kilifteef muy lu mat a bàyyi xel nag lu mat a bàyyi xel ndax kilifa mooy tax mucc am Serigne Touba nee na li tax mu mucc mooy dafa nangoo def yàlla kilifteef xam nga nit ki dañu ko yilif mu bañ a nangu kilifteef ga ka ko yilif di jël benn responsabilité ci moom waaye sëñ Mbàkke soxna dafa waxoon ni ab donga dafa war a fexe ba am li ñuy wax jaral maanaam nga xam ne sëriñ bi donga bi daf koy jaral la tax sëriñ bi nag donga bi di ko jaral mooy day nangu kilifteef sëñ Tuubaa nee na allahu rabbi wa waliyi abada yasrifu anni kulla man tamarrara la nangu gi ma nangu ni yàlla mooy sama kilifa nangu ni mooy sama borom moo tax lépp lu jóg jëm si ci man lu du yàlla fi leen ma ko kon kilifteef lu mata nangula xamna la xam naa dañuy guddal lool dañuy jox sëñ Mbàkke Gaye mu wéyal ko sëñ Mbàkke almashkuur bayna yadayk bika wa zuriyataha min ash-shaytanir rajim rabbi a'udhu bika min hamazaati shayatin wa a'udhu bika rabbi an yaxduruni بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله تعالى على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته mbokki talibé yi ñi ngi leen di nuyu nuyu bu sel di leen balo xaq te di leen baloo di ñaanal cheikh muntakal basir al khalifa al am li taif al muridiya suñu borom yagal ko fi lool mu and ak wér ak tal ba liggéeyal seelu xadim lepp lo xam yeen nako ko liggéeyal ci l'islam te ñu and ak mom liggéey suñu borom nagul ñuko di ñaanal cheikh seex al mustafa mbàkke muhammad suñu borom may ko fan wu gudd lool wu and ak wér ak tal ba liggéeyal seelu xadim lepp lo xam yeen nako na liggéeyal ci l'islam tañ Anda ak mom liggéey bi suñu borom nangul ñuko niki non tamit ñi ngi ñaanal mboolem njabot cheikhul khadim suñu borom xir leen ci liggéey ko tamit liggéey bu sel ta yalla ko suñu borom nangu di ziaré mbokki talibé yépp di leen sante ci téway bi jital ci nuyo bi ak sante yi kilifa yi nga xam ñoo jiite daayira bi dalé ko ci président yi ak commission yi ak njiital commission yi di nuyu tamit ñi nga xamni ñoy ñooy jëwriñu section Touba ak mbollem ñi and ak ñom niko oustaz mohammed Lo waxe rek dañuy ñëkënte ak waxtu wi fassiyene indi suñu barkelu ci tombe boobu mu wax te moy tombe kliftef donte mu dina suko waxtane ci jotaay bi bam mat seuk waye dañ ci indi ay tomb yoo xamni rek ku ci japp man na la jariñ eh, ndax it jamono jiñ tollu day mbir mo xamni ni dafa tumu ranké lol té muy lu ñu xamni dañ ni yitté wo ci jamono ju né ñun ñëpp xam nañ ni kilifa moom kenn la benn kilifa rek mooy am muy suñu borom tabaraka wa taala mooy kilifa ak asamaan yi di kilifa ak suuf si ak li ci diggante bi mooy kilifa mbooleem lu nekk ci asamaan yi ak mbooleem lu nekk ci suuf si ak li ci seen diggante mooy almawlal xaq dëgg-dëgg kilifa bu ñu koy wax suñu boroom moo tax ñu koy wax waaye suñu boroom bi mu bindee asamaan ak suuf yi dafa bind yeneen bindeef muy mbindeef mi nga xam ne moo ko ci gënal te mooy doomu aadama kilifteef nag suñu borom. dina ko dénkaane jël ci ay mayam may ko ay mbindeefam dénk leen ko waaye dëgg-dëgg kilifa moom mooy suñu boroom suñu boroom tabaraka wa la yónni na ay ndaw yoo xam ni ay mbindeef la ngir ñu xamal ñu wan yoon lañ war a jaar ngir jaamu ko ndax suñu boroom tabaraka wa taala moo ñu xamal ni eh, mom moy kilifa gi li dox sun diggante ak mom moy ak jaamu manam ki nga xamni ni la yelif sa diggante ak mom ben relation mo fi nek moy asamu wa taa moy dégg ak top suñ diggante ak mom dégg ak top mo ci wara nek top nak mi nga aju ci jëf ndigal ak bàyyi tere xamna ni ndigal yi ñaari façon rek la lu lay diggal nga jëf ak lu lay aaye nga jëf mooy digal yi imma muñ la jëfal wala bul jëf loolu mooy ndigal yi alxuraan li mu indi mooy diggale suñu borom ak i tereem yàlla dafa wax ci alxuraan yaa ayyuhal lazina amanu atiu allah wa atiu rasula wa ulil amri minkum فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ورسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا nga xamni ginaaw suñu borom wax na ni moy suñu kilifa moo ñu moom li war suñu digënté ak mom moy top ko te moy jaamu ko atiwan laaha mu wax ñi nga koy ci alkitab atiwan bil kitab mooy topp leen yàlla waaye ngeen jaarale ko ci alquranul karim wax ji nga xam ne moom la wax ci alquran ni nii lañ may jaamoo noonu nga ko war a toppe atiwan laaha wa atiwan rasula na topp yonente bi ni ngeen koy toppe mooy biti baaxi sunnatihi te mooy topp sunna si nga xam ne nii moom la indi alxuraan topp googu mu wax mi ko aj ci imtisalul awamir watina watina bu nawaahi moy top ndigal yi ak bàyyi tere yi xamnañ ni mukallaf mi mom la yalla togg muy jëf mom la yalla togg muy bàyyi jëf je di top ndigal la mu am ca tiyaba ñak ja jëf mu am ca ay daan gone gu ndaw gi nga xamni ni nii mukallaf yalla togg ko lola waye ñun ñi nga xamni ni dañoo nangu ni yalla moy suñu kilifa te mooy ñooñu mooy ñan mooy ñi nga xam ni mooy al muminuuna allahu waliyu lazina amanu yuxrijuhum mina zulumaati ila nuur kon kon yàlla wax na ko képp koo xam ne nii nee nga gëm naa yàlla mooy gëm naa ne kat suñu boroom mooy sama kilifa am naa kilifa mooy yàlla kon gëm naa ko kon loolu sart la boo nangoo ni gëm nga yàlla rek xamal ni génn kilifa nga am mooy suñu boroom te kooka li war sa diggante ak moom mooy topp ko jaarale ko ci ay téeréem waaye tamit nga topp ki nga xam ni moom la wax ni kat moo ma lay xamal moo lay wammat jëmale ci man te kooku mooy yent bi sallallahu alayhi nga jaarale ko ci sunnaam mu kalaf mi saa bu xëyee bala moo def dara war naa xam lii lan la ko ci yoon wax ndax lii lu yàlla digle la wala lum aaya la xam nañu bu ñu nee jëf jëf yi doomu aadama mën naa nekk jëf joo xam ne nii benn ab cër moo koy def lu melni beut bi man na jëf jëf jojé kon jëf yi beut mom lañuy wax xol nab bi man na jëf mom lañuy wax deg waye tamit amna na jëf yoo cër yépp dañuy andando dimbulen te ngir jëf ko nga xamni jëm nit ki mo jëf jëf jojé lola tamit war dafa am ay nattukaay yo xamni ci lañ koy nat muy ahkamu sharia muy juróomi xaj yo xamni ni ñaari xaj ñoo and yeneen ñaari xaj yi and di wax amuñu benn kaddu nga xamni fu nek la kaddu di jóge wala buñ diglee kenn du ko def wala ñu koy diital su boobaa mën naa indi ak néew doole ci suñ biir kon ndigal mooy li nga xam ne nii moo war a dox ci diggante eh, mbindeef yi ak ki nga xam ne ñoom lañu mooy seeni kilifa <coughs> su ko defee liñ bëggoon a wax lépp ci kilifteef du xaj ci jataay bi waaye soo seetloo ci sa biir kër wala ci sa quartier wala ci gox bi nga dëkk di nga fa gis yu fiy xew yoo xam ne nii bu njëkkoon xewlu woon li ko waral mooy ñàkk doxal kilifteef googu nga xam ne nii moom la mag ñi baax ñi daan jaar kon euh, dañuy. Euh, liggéey bi nag lu bari wax nañ ko ci tey ci ni mu war a tënkoo nii te daa tënkoo nii nu ànd li ko doxal ba ak si fi tey. Euh, ñeenti daayira yi juróomi daayira yi daje fii tey dañoo gis ne liggéeyu sëriñ bi yàlla def na ci tawféex bi mu ko sampee 2013 la ko tàmbali woon ku ne xam na ne 2013 nag ba léegi euh, fukki at yi day mat waaye bi muy samp mbooloo mi daa am lu mu waxoon fu sama kenn nekk danaa fa dem muy tournée bu rëy mu def ko ci biir réew mi ba mu daj def ko bitim réew Banjul fu ne dem na fa Casamance ne fu kennam nekk dana fa dem kon noonu war na noo jànge ci moom fu nu am kennam ci dëkk bi rek nan ko ko téyel ba mu defee loolu it mu wax nu ni mu bëgg a ànde ak nun nenu yéenay samay jumtuwaay yi may àndal liggéey liggéey bii ma suñ borom dénk koo fi mas a gis mu wàcc nag ci àdduna suñ borom di ko liggéeyloo boole na ko ak ab ànd ab ànd man nag yéene sama ànd yéene sama jumtuwaay yi may àndal liggéey liggéey bii mu ànd bëgg ko liggéeyal sañ Tuubaa ak lislaam yàlla nañ ko ànd moom ba faw rek te lépp di dox di baax euh, loolu nag bi mu ko defee noonu ba section yi taxaw ci ñaar fukki section yi ak benn section Touba yàlla taw feexal ko ci mu dox doxin wu wóor ci liggéey boobu ba si fii tey ci lañu daal di gis ne li nga xam ne moo gën ci mbooloo yi mooy ña jege di daje buñ dee daje di gisante di waxtaan lépp luñ bëgg a def rek danañ ko mën a def ni nga xam ne noonu la ko suñ borom bëgge noonu la ko sëriñ bi it bëgge Euh, daayira bi di mukhlisina ak nuyul maram ñu tambali won ko ñom lu jekk e jamono xel kom di taxawal yu bare bare bari lo di ko liggey ba ak ci tay euh ñu gis ne ñu bare ngi def ay seexale ak te am solo lol te bax ci mbooloo bi ci daayira bi tam ñu na kon fi ñu tollu ni nan wat jotaay indiwaat ko ci jataay bii ngir felli filli yokkaat ay laxasaay filli moo indi jataay bii bi ko kilifa waxtaanee nag ñu gis ne daayira yi féete nii ci sow e, te manqueloo guñ nañ fexee manqueloo ànd daje boole jëmm yi déglu ndigal te xam ne loolu rek tax mbooloo mi toog fii déglu ndigal bu ndigal wàccee ñu jëfe ko ñu ne kon nañu boole daayiratu ahibbaayil xaddiim muxlisina njiit la di bàyyi Moussa Gaye ci soxna yi soxna Ousseynou Dia mu jiite soxna yi moom it di leen soññ ci Naylu Maram daayira ahibbaayil xaddiim Naylu Maram Serigne Cheikh Dieng mu jiite ko soxna Mbène Dieng jiite soxna yi di soññ mbooloo mi e, ci daayira Miftaahul Muna Sëriñ Ilimaan Jeng moom itam jiite liggéey boobu ak soxna Awa soxna soxna maam Gay Jeng soxna maam Gay Jeng e, daayira mu Xuddaamul Xadim mooy soxna Awa dama ko xaw a ci waaye mooy soxna Awa Sarr kon ñooñu ak mujtahidina un daayira Hibaayil Xadim mujtahidina un mujtahidina deux muy Serigne Ibrahima Diouf ak soxna yi mu àndal ku jiite góor ñi mooy Serigne Makhtar Silla Serigne Makhtar Silla moo jiite Xuddaamul Xadim ak soxna Awa Sarr soxna yi Miftaahul Muna sëñ Ilimane Dieng moo jiite góor ñi soxna maam maam gay jeng moo jiitu jigéen ñi kon dafa mel ne ñooñu am nañ ab liggéey ci mbooloo mii toog ak ma ñëwagut te war a ñëw liggéey boobu nag mooy fexe ba ñi jënd kart te di koy yeesal ñu far ñu farlu ci ndax dañoo sëñ bi daa wax ne boo jëndee kart wi bokk nga su at mi jeexee la koy yeesalaat kon bokkat nga su fekke nak da nga jënd carte bi té at mi jeex yeesaloo ko bokkaatagoo soo demee ba am yettat at yeesaloo ko yoon ya génné sa bop ci mbooloo yalla nu yalla musal ci lool kon nan fas yéene góorgóorluwaat te xam ne ànd bii moom rek la sëñ bi soxla motax mu def na course gii ndax kat course bi muy wax ne def nañu kurus ci njaareem la mi ngi woon ci tournée bu réy boobu waaye bi Moustapha Lo jógee tiim ko dafa taxaw ne sëñ bi nee na dafa bëgg ñu ànd ak moom ñëpp mu nas leen ñii ci kurus fekk sëñ sëng jaañ réy mu laaw waxoon na ma ne sëñ mus sëñ Mouhamed Mbacke soxna Lo nee na ko sang mu ne ko Mbacke mu ne ko sang rey ñi ma jox seen bopp te muy dëgg ci ñoom yaakaar ma te dëgg ci ñoom wóolu ma te may dëgg ci ñoom boole naa leen ñoom ñëpp sol ci benn saaku takk ko kon sëñ Mohamed bi muy dem cëpp saaku la nu sol sëñ bi ñëw nas na kurus mu yomb lool bu newu woon saaku bi pere yi tasaaro rek la ñuy doon bala ñu noo dajale kenn du ko xam nuñ koy dajee sax kon yàlla na yàlla fayal sëñ Mohamed Mbacké waaye fayal nu Cheikh Moustapha mii kon daje mii ñu daje tey muy seexale juróomi daayira yooyu ñi ñi ñi tax mu composé wu bureau bureau bi ko jiite ak membre yi ci gannaaw nañ xam ne am nañ sas woon dal sas bu rëy woo xam ne da ca jataayub déglu ndigal la ak jataayub jëfe ndigal déglu ndigal dégg ndigal jëfe ndigal mooy mbooloon jé euh, ndigal dégg ndigal jëfe ndigal yàlla noonu yàlla dimbali ba lu ñëw rek nu mën koo def ngir jëmmi sëñ Tuubaa di xam le ne nag nan gën a góorgóorluwaat Euh, képp koo xam ne gis nañ ne mbooloo mii bëgg na cee bokk fu mu mën a nekk rek nañ ko jël jëli mu bokk ci mbooloom na ñëw ndax mbooloo mi mbooloom lislaam la mbooloom muridullahi la mbooloom sëñ Tuubaa la mbooloom seex Moustapha la kon mbooloo yooyu dafa war a yaatu waaye ta xat kon yàlla yàlla dimbali ba mu gën a yaatu ci barke Cheikh Ahmadou Khadim nu góorgóorlu nag liggéey suñ kanam xam ne mënut a ñàkk ndigal yu nu section bi jox yéen a ngi bëgg a dégg seen kàddu léegi ci kanam ndigal yi nu section bi jox andil nu ko mu bàyyi ko ci kilifa ya muy ci góor ñi muy ci soxna yi nan am pas-pasub fas yéene buñ te des gannaaw mukk ci barke Cheikh Ahmadul Khadim ñu ngi ñaan suñ borom miy maye mu may nu fii ba déwén kenn bañ a ba jàll ko sax te xa milliards yi suñ si Moustapha doon wax mu wàcc si suñ poos yii ban yor ko ba mën ciy jëf ndigal yii suñ jëmm yii suñ borom aar ko ba lépp loo xam ne luy lore la wala luy doge la wala luy tee egg la loolee yàlla nañ ni ko fëlal mu dem na sëñ Moussa waxe war rek ne antal misil misil moo ko ëpp doole antal misil boo gis misil la ko ëpp doole kon nag misil bu ne antal misil la ko ëpp doole kon kooku nanu fegul mbooleem luy lore yàlla na nanu dëddu mbooleem luy jëriñe yàlla na nanu dugg barkeb Cheikh Moussa moom sëñ Mohamed wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu. te muy ndigal loo xam ne lu ko ñor lool la. waaye bala ñoo dugg ci loolu itam di leen jaajëfal bu baax sëriñ Mbacke gay ci waxtaan wu am solo li nga xam ne moom la doon wax ci wàllu kilifteef te kilifa di lu am solo surtout jamono ji nga xam ne ci lañ toll léegi te mel ne daa dem bay bëgg mu rànke dañ war koo jàngataat bu baax nag rawatina ndaw ñi xam ne am kilifa rek mooy li am solo li ko sëñ Bay Jaxate di waxe rek. am kilifaay li am solo soo ko amee am nga solo soo ko amut amoo solo ku wéeruwul yomb bu ma kon nit ki dafa war a am wéeruwaay kon nag ndokk bi nu suñ borom joxee wéeruwaay woo xam ne mën na sëkk wéeruwaay kon la ca des mooy ñu jàpp ko jàpp ko niñ ko war a jàppee te fonk ko te wóolu ko te yaakaar ko bu ko defee rek lépp dana baax euh, kon nag euh, ñu jëlaat rek kàddu yi di kàddu yoo xam ne fàttaliwaat liggéey bi rek lay doon ak soññee. taxawaay bi nga xam ne moom lañ ci war a taxawee ci góor ñi ak ci jigéen ñi mag ak ndaw te kat liggéey bi ñor na sëriñ bi lool ni ko Baye Kamal waxee nag duma ci delluwaat ci wàllug daayira ak li la cay boole ndax loolu yaakaar naa ne ñépp xam nañ ko waaye boo ca bokkee ba noppi itam daa am ay warteef yu baree bari yoo xam ne dalay war ndax loola it mooy dundal liggéey bi te yaakaar naa ne nit ñi xam nañ ko te ñi ngi ci waaye nag fàttali ak soññee rek moo ñu ciy war saa bu ñu dajee ci jataay yu mel nii ci pas-pas bi gën koo yokk niñ koy yokkee nag mooy dañuy xam kiñ àndal ndax sëriñ bi kat dafa waxoon ne day dem kuy dem nag ku ànd ak moom boo bëggee bu geesoo gis la dangay waaxu waaye boo àndee kuy waaxu di dem ba pare nga bëgg a diimaagalu boo watuwut dangay gees doo ko séen kon nañ gën a góorgóorluwaat te xam ne kiñ àndal moom taxawut ku taxawut nag ku ànd ak moom dangay yokkaat sa laxasaay te filli rek kon nañ gën a góor góorlu te xam ne sëriñ bi moom ndigal yi nga xam ne moom lañ àndal moom bu daanu rek beneen day jugaat li ñuy ñaan mooy sunu borom mu may ñu kàttan ak fekkeek tal ak wërsëg wu woo xam ne nag lépp lu sëriñ bi bëgg rek ñu mën koo def ni nga xam ne noonu la ko bëggee yaakaar naa ne jamono yi ñu toll nag liñ gën a soññee mooy wàllug àllarba yi ndax quatre li ci des bareetut moo gën a yokk sax assemblée générale yi nga xam ne moom la ñuy def di ci dajale par ñeenti daayira tey ji ñu dajale juróomi daayara liñ ci gën a amal yitte mooy soññawaat bu baax àllarba yi àllarba yooyu nag mooy li nga xam ne moom la ñuy jébbal sëriñ bi waaye nañ ci bàyyi xel ci ne àllarba yi itam ñëpp la war ba ci gone yi tuut tànk yi dagg kenn ku ne am na lum tollool na ko ko ay waajuram joxeel nañ fexe daal ba li nga xam ne moom la ñuy jébbal sëriñ bi at mu jot nay gën a yokk waaye buñ dellu ginnaaw mukk beneen ba ca des itam mooy am na leetar yu ñu war a joxe yoo xam ne mooy waajal loolu ak màggalu Kan gi ndax dañ ciy màggal suñ borom it mu jox da eh, may ñu taw feexi dajale ñoo bis boo xam ne yaakaar naa ne yoonu murit wépp ñépp a ko bëggoon a féetewoo muy bis bi nga xam ne ci la Cheikh Mouhamadul Moustapha tegoon xeeru jumaay Touba ji muy symbole bu am solo boo xam ne yaakaar naa ne ku ne bëggoon nga ko moom di ko màggal suñ borom taw feexale ñu ko ñu di ci màggal la 4 mars taw feex ji ci dolleekuwaat mooy ñu ciy dajeek sëriñ bi di ko ci ziar. kon ba yoy nañ ko fonk bu baax te gën gor góorgóorlu kenn ku ne rek lo defon daw na nga fexé ba ñaraasu loloy tax lañ defon gëna yok kon nañ ci góorgóorlu bu baax lettre yi kep ko xamne jot nga sa lettre 4 mars rek lañ la ca sas nga fexé ba loola nga matal ko kon lolu yaakaar naa ne bokku na ci soñé damay wax ni rek demb ci yor yor kep amna genn kilifa police bu ñew sama kër fekk na li ma xamalanteeg moom aéroport laa ñëw daaw bagage yi ma sëñ bi joxoon yàlla def mu am tardement ci ndimbalam kooku xaw ma ko xaw ma mu gis ma rek xam ne am naa soxla mu laaj ma soxla sa ma wax ma ma wax ko ko mu ne ma may ma dinaa ko toppatoo jaari jël sama numéro téléphone lijjanti bagage ba ma jot ci waaye yàlla def mu ñaan loon ma ci barkeb sëñ Touba ndax ab taalibe la ni ma maa bëgg ñëw Touba. ngir kat Touba la ma fa dégg ak la ma fa gis te moo sañoon lépp dañ la ma ca may la ma ca soxla woon mooy nekk fa yàlla suturaal mu ba waxtu wii ren maanaam ren bi ñuy dem Europe ma jot ko téléphone mu ne ma affecté nañ ko Touba mosuñoo gisaate nag lu dul démb la ñëw sama kër waaye li ma nettali loo xam ne xew na ci dëkk bi loo xam ne mi ngi xew ci dëkk bi moom ci boppam àgg na ci ne su ma sañoon tey mooy fanaan ndax ab taalibi la te bëggul lenn lu yàqu taalibeem te loolu lépp ak ruur la moo xam ne taxaw na fas yéene yàq gone yi ak pas-pasu nit ñi ndax nit moom bu amatul kilifa ni ko sëñ Mbacke doon waxee seytaane képp ay kilifaam da dégg ci rajo réseaux sociaux loxo mën a tudd ci ci internet bi bokk <laughs> waaw ñuy wax ni kilifa yi nangam ba wan ni la kenn wërta kenn gëm jërta gëmati kenn man damay laaj nag ñi wax loolu ndax am nañ ci intérêt am déet ndax am nañ intérêt ci bu kenn gëmati kenn damaa jàpp ni ku amul intérêt ci kenn ñàkk gëm kenn doonte yow gëmoo kenn doo topp kenn da nga cay wéy waaye doon nag nit ñi bu leen gëmati kenn te sëñ Moussa Mbaye mi dégg naa keroog mu wax ko koo dégg mu naan bu leen gëm kenn daa bëgg ñu gëm ko wala mu bëgg nu gëm keneen waaye am na koo gis am na ku mu gëm ma bëgg nu góorgóorlu nun ñëpp fas yéene ndigalu Cheikh Moussa Mbaye ñu nekk ci am nañ ay royukaay mag ñii toog fii am na ci ñoo xam ne Serigne Cheikh Ahmadou Mbacke leen muritu am na ñoo xam ne ci sëñ Mbacke Mouhamed lu ne seq nañ ko ak moom te tey leen gën a xër gën a ëpp yaakaar gën a wóolu Cheikh Moustapha Mouhamed te la ko def gis gunu gis mu teg tànkam ci siraatal mustaqim fa yéene lépp lu muy digal nit moo ciy jiitu masama toog fi moom mu wax ni man da ngeen xam ne du ma leen digal len loo xam ne du ngeen geesu gis ma ci kanam. tey lépp lu ma leen digal ànd ci ak yéen ak kenn bañ ma caa fekk laa yemale su ma sañoon nag lépp lu baax su ma ci nekkee suma ma geesoo gis leen loolee moo nekk ci liggéey bii nan jël sunu jom ak sunu fayda ak sunu fasteef fas yéene koo ànd ak mbooloo mii tey nga def nag subaa nga bàyyi su la neexee nga nga ñëw su la neexee nga toog nee nan koo xam ni kat bu tàngee nga ñëw bu seddee nga toog ku la am amut ku la ñàkk ñàkkut kon nan fas yéene bu neexee ñu ànd sëñ bi bu naqaree ñu ànd sëñ bi naqaree nag du ko def waaye jamono nag mooy am nu mu mel cëpp kuy wut lu baax yàlla dana nattu nga toll yenn jamono soo xoolee sa xol da nga fi li ngay def sa jigu la waaye mag ñi àndoon sëñ Tuubaa lan daj duñ ko daj mukk waaye ba pay gi ñëwee ba àddina tukki ba a ñu dem àllaaxira kenn dootu leen dab ca la ko waral mooy nekk ci yoon wi ci fas yéene bañ geesu kon sant na ñëpp jataay bi rafet na taaru na képp ku fi ñëw xam nga ni lii yàlla kese la yàlla na yàlla jooju sax képp ku fi ñew aaji yo fi indi yalla nako yalla yàlla barke Cheikh Moustapha te xam na ni sa amna ku aajo ku aajo noonu te faju ñu ñew ci jotaay bi waxtu dafa xat li waran waroon wax xamatuñ ci dara kon nga sant ñëpp di jégalu ñëpp alaykum wa rahmatullahi wa barakaatu. ñu jallale daayere bu dafa julli te ñaan miftahul Muna amna ñu riño ko ñom keur Soxna Fatma Fall jakkay serer miftahul Muna Xuddaamul khadim alraba duñ ko riño ndax da tombek Poroxaan waye kon ci dimanche ji lañu riño fi ci marché jeewal ku fa ñëw rek da nga dégg rajo yi kon bu ko defee ñu julli wala boog ñu indi door a julli